jàppale. jàppale leen leen waaw mooy yoon. suñuy moroom rek la ñuy jàppale si àll bi. jërëjëf jàppale jërëjëf ah waaw moo waaw Modou di profité di nuyu nuyuwaale sama soxna jàpp na ci bés bi bu baax a baax a baax jaajëf merci waa bawul bépp mm. waaw di la wax ne affaire yaay noonu waaw ñu gën cee taxaw bu baax a baax kontaan nañ ci yéen merci macha allah am na solo combat bi ñaari ñaari champion yi koy ñaari champion yi bëre combat kenn si ñoom ñaar bëggul wax ci jàkkaarloo bi parce que ku ci nekk da fanaanoo mer muy combat bu am solo Youssou Ndour waa Tëngéej nañu waajalan incha allah fan yi dinaa ñëw ñu bantamba lu neex incha allah yow champion nga booy jaxaaw eh, ah, njaga doole dafa amaat blessé wala dafa yor loxo bi loolu ah, tontu si loolu tontu question boo woowee première question. waaw ah, asalaamaaleykum mbooloo mi. ay ziar ñëpp ah. di jox ñi fi nekk ñëpp seen wàccuwaay. ñaan yàlla jàmm rek. non papa amaatuma blessure de. Ah, li gars yi rek. saagi ñuy dóor saag yooyu ah. kii. loolu la quoi. waaw ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay bañ sante yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ si Alioune Malick Ndiaye. di ñaanal yàlla Cheikh Mbax Sëriñ Bo yàlla bàyyi ko ba suñ kanam amiin di ñaanal yàlla waa Ngumba Ngewul ñëpp ñu am jàmm di ziar waa Nguraan di ziar waa Baxee Ja waa Baxee Jaay di ziar waa Ngaay nag bu baax a baax si mel ni waa Touba Kan seen barax lu gi ñu doon def yi passé lépp lu fa ñaar rek yàlla na ko suñu borom nangu lépp amiin ñaanal yàlla xalifa sëñ Fallou Kan mu yàgg fi loolu te wër di ziar sëñ Cheikhouna Kan waaw di ziar sëñ Ibra suñu xarit suñu lépp di ziar sëñ Mamor di ziar waa Nder Naar seen gàmmu gi paas samedi la woon. Mhm. di ñaanal yàlla sañ jullit. te wër di ziar waa Ndiassane di ziar xalifa bi ñu ngi waaj bu ñu seex buubi xam ne ñun amuñ lu dul foofu quoi ndax ñun ay taaliba xaajar waa koñ nag di nuyu ñëpp ñëpp ñoo xamante ne sonn ñu ngi sonn si njaga doole njaga doole mu ngi leen di nuyu ndax awma seen fay quoi. combat bi passé lu tax amul. waaw combat bi passé ndog-ndog la rek fa la lay jugee quoi xam nga sama adversaire moom muy tax ay rajo di wax rek yaakaar ne benn doomam la yor ndeysaan te billaahi buñ bëri woon fii maa fi toog coow lee fi nekk rek mais wër na yàlla ñii nii mooy loolu quoi dañuy bëri pare. essai yi mënuma maa préparé affaire yi demee nii ma ñëw di amaat leneen lu may wax damay ñëw confirmer rek mais buñ bëri woon fii maa fi toog loolu man leer na ma mais yaa ngi taxaw ci di wax da ngay nite sa adversaire blessé ñaanal ko àdduna noonu la quoi man maa sa trésor force mënoo si dara. Hmm. dama lay daan billaahi dama lay daan. wóor na yàlla xaar ay eh, ki signature kii kii nga signature maanaam fi nga taxaw léegi dama gëdd ma daw man góor yàlla du ma gëdd ma daw xaar xaar xaar man man góor yàlla du ma kii ndox mu sedd bi man dama ko bëggoon mujjee naan damay déglu ma wax la rek jaga waxal fii rek garaawul garaawul mu sedd bi wax kii nga ni maanaam ndox mu sedd bi dama ko bëggoon ko bëggoon mujjee naan kii mooy ndox mu sedd bi kalaaf bi kii mooy fi ndox mu sedd bi mooy saraxu kalaaf bi <laughs> yàlla moo def loolu quoi dañ koy nangu yaa may dégg. yow eh, eh yaa ngi wax erreur njaga doole. Modou Mbaye ñu li ñuy wax nekkul. waa xaara xaara waa xaara. dañu fas yéene jëfee. waa xaara mu nuyoo ko mu nuyoo. bàyyi doole. waaw maa ngi maa ngi nuyu ku sama grand ma jaw sama grand ma jaw grand commerce maa ngi koy baax a baax ah. maa ngi ziar maa ma jaw bu baax a baax di ko jox wàcc waaye suñu grand la suñu lépp la. waaye li a Talla Jaw grand commerçant. di ziar Gora Jaw. waaw yaa may dégg borom jaw koko. Mm-hmm. ngi koy ziar di ko jox wàcc waayam quoi. Mm-hmm. gars yi ku wax ku ne ni kere sa mais man moom. zi naan quoi. man kooku mooy lépp. kooku moom moo may dimbali quoi. di ko ñaan yàlla Gora Jaw nag combat bi. ay bloc laa soxla sol koko la fi indi. ku si mel ni tamit ku si mel ni tamit may sa sant yàlla boutique kooku suñu grand suñu lépp la fu la ñuy taxawu. wax naa la ku nekk da sa sponsor sama xarit la sama lépp yàgg wax nag sama benn yooyu ci dagg yi lay bokk anniversaire dimanche waxtaanal ñëw fii di ko fi wax waa Ajico yi dimanche yéen ñëpp ñëw leen koñ ba ñu tëgal ko Ajico souhaité ko soit anniversaire aja aja euh, booy jaxaaw maa ngi lay nuyu jaxaaw kii li mu wax na nga ko tontu waaw dina ko tontu <laughs> dafa baax rek ah, jaxaaw xam na li may wax dëgg la ginnaaw bañ sant yàlla di julli si yonente bi dañuy doolee sant ni ñaari waajur bu baax mm-hmm. di santaat yàlla julli si bi gën a doolee sant suñu ñaari waajur. di mm. sant suñu Serigne Serigne Bara Cissé. Mm. ñu ngi koy sant bu baax a baax. di sant per Bek. waaw sa jarbaat mu ngi lay nuyu laay. waaw waaw. mu ngi lay ziar sant per Makan. Ablaye Sey. ak suñu champion yi toog fii. Mm-hmm. di nuyu tamit suñu mbokk mbër yi toog fii tamit ay champion la bi. Mm-hmm. suñu papa yi nekk fii ak suñu mag yi ak suñu rakk yi. ok di nuy waa Thiès. Mm-hmm. di sant Père Pambay bi ñu àndal.